ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñu ngi leen di sant yóbbante yeeg euh, rendez yu xaw tardé yeeg yëpp dinañ ko dabaatal fekk ñaari fan yi rek ñu bare ay tolofu tolofu soxla soxla soxla wax naa léegi ni bi may ñëw lañ ma ni président ndawa ma ngoog di dem doon la laajte waaye fekk mu génn moo ma yóbbante ko mu gën a gaaw ween ko gisee ni ko jërëjëf waaw ah, loolu itam ci yitte la bokk ci yitte la bokk te man dama koy tooñ waxtu wu nekk rek bu ma prêter serment ba noppi ma di ko tooñ ma ni ko monsieur le président mu ni ma eh oui <laughs> bi ma prêter serment ba noppi monsieur le président mu ne eh oui pour une fois na nga jekk depuis quarante ans ci loolu la nekk tubarkalla ak Abdou Diouf moo tax ma ni leen na ngeen def très attention parce que itam nag jéem a ayoo baaxul waaye ngeen seet rek nu ngeen defee nu ngeen defee yàlla buur la ngeen seet nu ngeen defee rek nu ngeen defee nun nu ngi fi ah tabarkalla nu it nu ngi organiser wallaay ñu ngi organiser ci suñu niveau daayira ñu ngi organiser ci suñu niveau parti waaye ñu ngi organiser itam ci yeneen i niveau bëgg ku ñu war a dimbale rek ñu dimbale la du dëgg loolu rek mooy li am solo parce que ay itam amul benn njëriñ yiw rek moo am njëriñ waaw yiw rek moo am njëriñ ñu defe ko noonu du dëgg boobu moo gën a baax bu ko defee bu ci ñépp jàppee rek yépp dafa dox yëpp dafa dox la tabarkalla tabarkalla te sunu kilifa yi fi jaar yëpp ñu baax lañu ñu baax lañu man ki ma ci gënoon miin mooy Senghor waaye moom ku baax la daan ah, nañu xuloo nag xuloo yu day na waaye ku baax la yàlla xam na ko ci wàllu tubaab sax dama ko daan poussé ci muy wax ay mots yu xaw nekk yu mbedd noonu mu di ko bañ waaye damay fexe ba mu nangu ko walaay ndeysaan léeg-léeg ma bu dee jëw benn xaritam ma ni ko mais je le connais mais il est dingue bu ko defee mu ree ba tey ni ma mais le mot dingue c'est pas sérieux ça waaye doo wóolu lu dul rek comme dégg na ko ñaari yoon ñett su ma ñëwee bu mere kenn ni ma yile daan <laughs> wallaay ndeysaan dama ko jiy poussé toujours wala mu wax ma kenn ma ne ko mais il est complètement toqué wallaay ndeysaan bu ko defee nga yëg benn espèce tik bu mu def noonu waaye bu beneen ne bu ma ñëwee mu ne mais il est complètement waaw mag mu baax la ndeysaan maa ngi dajeeg ay mbokk ñu di ma ko laaj yu jóge Algérie ni ma le président Senghor man leen e moom day le Zuhayra waxoon rek sa imtu takalif al xayaati sa imtu takalif al xayaati wa man yaash thamanina xawla la abalaka ya saami wallaay ndeysaan Zuhayra moo ko waxoon nee na ko am juróom-ñett fukki at eh, dara deseetu la lu dul nee na def sa retraite rek wallaay ndeysaan boobu itam góor gu baax la Zuhayr wallaay ba tax na yooyu yëpp ay expérience la yu nu yàlla may ñu jaar ceeg jàmm tabarkalle ak xel ak itam rek déglu waxi mag déglu waxi mag dama toog ak Abdoulaye Fofana mu ni ma ma Cheikh réew mi jaxasoo na de ma ni ko ëpp na loolu mu ni ma est-ce xam nga ci xalaatu Lamine Gueye ma ni ko ah yow yaa ko war xam parce que yow léppam nga mu ni ma dafa mel na euh, ci ni ma ko xamee du la nëbb dara su la gisoon dina waxtaan ak yow ci jamono ma ne ko baax na kon dinaa ko seeti ma dem nag seeti ko ñuy waxtaan tabarkal tabarkal tabarkal li mo xam yépp ci wàllu jamono bi mu wax ko xam nga dafa parce que dafa wax ni dafa Lamine dafa dafa réunir toutes les séductions presque parce qu'il est il est à la fois tout po pour les sénégalais Senghor daf ko tàgg ni parce que li ñoo tuddee naissance am na ko li ñoo tuddee prestance am na ko li ñoo tuddee éloquence am na ko xam nga tagg boobu rëy na ma dem nag di waxtaan ak moom ci wàllu jamono wàllu démb te la ma wax ni ma gis nga sa toogaay rekk a tax mu mel ni dafa xaw a am yaram waaye ku tuuti la woon waaw lu ma ku tuuti la woon te man solu mu ni ma du sol grand buubu mukk jubba yi la rekk laa sol waaw mu ni ma ma fekk mu toog ci sa wetu maam ca ndar fekk may tàggu si sa maam waaye mi ngi sol jubba bu rafet waay mu ni ma dafa sewoon tuuti ñuy waxtaan ci yu mel noonu ci wàllu réew mi ak yépp waaye mu ni ma tijaan ba nga ma digal la ni ko mu ni ma boo nàmmatee sa jaasi ba mu ñaw bu ko abal dof dafa dem ca mbedd ma rey nit ñi ba noppi wàññeeku ci sa kaw mu ma bu ko ti mukk walaay ndeysaan ma ne ko ba tey loolu baax na ba tey loolu baax na yàlla dogaloon ñoom ñëpp jël naa ci ñoom loo xam ni doy na sëkk expérience ñoom ñëpp nag ñoom ñëpp bu dee Mamadou Diaby bu dee Senghor bi bu dee Lamine Gueye bi tabarkal la yàlla dogal rekk ku ci ne sa xam-xam jël naa ci waaw ah, loolu nag boo ko booleeg xam-xamu sëriñ Babacar waaye mel ni mën na ubbi bunt ci kàttanu yàlla te lool rek mooy li am solo ah, dama daan wax góor gi ni ko am na lu ñu la mënul fay mooy mi ngi mel ni dañu dund ak Maodo parce que li ñu xam ci moom xamuñu ko ci yow te loolu lu am solo la ndax loo wax rek mu ni Sidil Hadj malik nangam loo wax rek mu ni Sidil Hadj malik nangam Sidil Hadj malik nangam yooyu tabarkàlla mi ngi mel ni da nga dund ak moom noonu rek la mel yooyu yëpp nag buñ ko boolee nekk ak ay sët ak ay ndaw yu ko war a jëriñoo it ñu jox leen ko ñu jëriñoo ko parce que farata la farata la farata taxawaay la taxawaay la taxawaay la parce naa dégg ci Abdou Diouf mu ni ma bu ma sañoon bés bu ne nga gisee koo fët wallaay li ma ndax nitu expérience la të dama yëg rekk ni waxam soo ko booleeg rekk sa xalaat dina am njëriñ daan naa dem di ko seeti ñu toog ci suba ba tabarkalla jant so waxtaan rekk waxtaan rekk affaire àdduna yeeg affaire yu xew ak tabarkalla tabarkalla yëpp ci barke sëñ Babacar Si foofu mën ngeen nu fi def conscience ngeen def ñu confiance ci loolu waaw mën ngeen nu def confiance ci loolu tabarkalla tabarkalla ah li ci des nag moom xam naa kenn sañu ko wax sax lay ndeysaan kenn sañu ko wax sax mi ngi tolloog nag eh, bu ma xuloog nit bu nu dem ci mbooloo bu nu demee ci mbooloo ñu jox ma dëgg parce que bu ma laajee li xew rek ñu jox ma dëgg ndax sëñ Babacar daf nu yarul ci tooñ nag waaw yarul nu ci tooñ mukk yarul nu ci tooñ yarul nu ci tooñ mukk ndeysaan bi mu tëddee ba ci fan yu mujj yooyu yi ko gënoon a yitteel loolu ca la bokk tabarkal la wax ko waxin boo xam ne rek xam naa ni sunu boroom dégg na ko te lool rek mooy li am solo ah. sunu boroom dégg na ko bu baax a baax dem na ci ba ni ma sa maam su doon dund dina ma fi jël wax ak yow boo ko wax ci làmmiñam ma ni ko maa ko xam wallaahi ma ne ko maa ko xam tabarkalla tabarkalla yëpp ci sama barke turandoo rek na wallaahi ndeysaan wallaahi ndeysaan wallaahi ndeysaan wallaahi ndeysaan wallaahi ndeysaan sëriñ Babacar dafa wuy ji ñu teg ci ñeenti fan yëngu-yëngu am fële ca wetu Mbàkke ñu ñëw seet si ma daal yëngu-yëngu la boo xam ni sunu diggante la ak lenn njabooti sëriñ Fàllilu daal mbax ma ne Alaaji Paala Mbay demal nuyul ma góor gi ma ko maa ngi ko seet na mu def li ko lii itam xew-xew la ah te moom moo fi nekkal Sëriñ Babacar nun nekkalu nu ko ñi mu yilif ak ñi sëñ Babacar yilif ñëpp njabootam la kon nag nanu ko rek leel moo gën Alaaji Pala Mbay wax ko ko rek mu rek la ko ci lu matul waxtu dindi kaamil jox ko dindi jallab bu weex jox ko dindi sajaat jox ko da ko sedd demee nga joxal ma ko sama dox te ni ko lii bu mu ko bàyyeeti mukk waaw tabarakallah pour wax la ni mag ñi ñu baax lañ boo leen joxee seen cër rek ñu réglé ko loolu la leen yàlla di defal mu mel ni yooyu yépp nag jaar nañu ci xam tëj fal yéeg yu kenn xamul tëj fal yéeg yëpp nag di ko xam foo ci tollu yëg yëg ni kilifa yaa ngi fa tolloog yow wallaay ndeysaan borom yitte lañu ñoo amul morom na ndeysaan gëm nga sa bàyyi nooyal sa xol ci biir njabootam gi tëral ramboo ñu soppeek ci demam jaaraama Cheikh Ahmed Tidiane yow mi jëfal xutbu samaan Ababakar ba tax mu naan yaa ko gënal ñaari bëtam jëfal nga mbay baam ngërëm mu xëy la woo ca ak dundam naan lépp loo doxal këram seedeel ni am nga sañ seede ba moo di waa ak bal ya baa ñëwoon si ñu boob ca saal ba di ko xaar góor ji tawat aw yaramam keroog xol yi gëlëm ku nekk naan ku nuy bégal tey dégg naa góor gi du mën ñëw soppe naan xol yépp am na tey gëlëm keroog la woo Ahmed Tidiane si naan ko demal maa ngi fii di ñaan waxtaanal ñoom la ma daan waxtaan ci yàlla ak ndigalam keroog nga ñëw nuyoog ñoom xaatiban wa ahlan wa zahlan marhaba xutbaam ba dégloo xutabaa ya toog di déglu ay waxam keroog nga jàng foofee discours am mbay see ngi déglu tey gërëm nga taxaw di ko bàkk ci jukkoom jaaraama seex yaa bara jom keroog nga wax ci mbay si jaar ba tax mu ëpp ñépp taar ci wàllu diine fa mu jaar ba doon Maodo baatinam mbay tiim na ñépp ci ngoram mbay tiim na ñépp a xam ci kabeem nga doon bigal biral caaw nitam keroog bégal nga leen ba ñépp naan bu góor gi féexee it xanaa day bay mattoom mi xanaa mu bégal ci xob xam-xamam mu xëy la woo may la ndigal ci lépp loo seet sa xel caab siyaasaam nga doxal te naan la yaa di wéttalam ba tax na seex mii lu mu def ndigal la kii kenn du ko fi nun ñépp xam ne daan na jëf ci Babacar ci ab dundam kon seedeel ni foo xool la xool gëm nga sa bàyyi nooyal sa xol ci biir njabootam gi feral rangoo ñi soppeem ci gëmam seet leen keroog ba mbay xëyee seet ci rasool ak Maodo sëy nun ñépp noo sa ngeen di jooy ngir di metti ak demam billaahi suuf yiir na ko baax xalifa jikkoom ya góor yépp la neex mbooleem lu ñuy nawe ko baax fekk na mbay jéggi fukkam bisub keroog yaa nu dëfal singaar yaay boom ndigal ci say di mbay daan ko jëfal ba xolam am ca ngërëm Ababacar Si moo la woo nga ñëw mu lay gërëm naan del dox ci réew mi Cheikh Tidiane ngay wax lu wàññi seen ngëlam mu naan ba may toll naka yow dem naa fu nekk ngir taxaw ci diina jéeg lépp lu xew ci wàllu Malick ci dundam lambi diina saaj naa doomi soxna yi gembu na Cheikh Maktoum lanu wàlle bàkk leen ko barakallah waaw Ndeysaan اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم بارك الله فيكم والله والله نيسان والله نيسان والله نيسان ان يلا فايلين يو تبارك الله ان يلا فايلين يو ان يلا فايلين يو ان يلا فايلين يو تبارك الله ah moom daal quran kenn amul moom daal yàlla daf def ci bàyyiwul dara ma farratna fil lépp a ngi ci tabarkalla tabarkalla tabarkalla xam naa ku ko am di jaaxleeti sa bopp la tabarkalla téere bu yéeme yéeme la wallaay ndeysaan wallaay yàlla taas ci barke téere bu yéeme yéeme la téere bu yéeme la xam naa guddi gaa ngi sore sax tuuti waaye rek bu nu sañoon toog fi ba bëccëg fekk nag rekk sant yàlla te mel na rek noonu <laughs> yeewi màggat mi yow yu màggat yi rek loolu kan la ngeen continuer ndax ngeen bëgg ci yonent bi tawarkal la bëgg ci yonent bi du du doy mukk du doy mukk tawarkal la tawarkal la ak leen leen di mbokk yu fi ñëw ci jàmm ak lettre yeeg yëpp la jot nañu ko bu baax a baax tubarkalla ñaan yiw rek di ñaan jàmm di di leen bàyyi xel ngeen di bàyyi xel tubarkalla waaw ah, koo xam ni mouchoir sax bu ko amee bu rafetee yow lu ko yéene waaw ah, kooku amuloo payam te sa jëmm taxul waaye sa jëmmu kilifa tax tubarkalla loolu la am solo la tubarkalla yal yàlla fay leen yiw yàlla fay leen yiw di leen may wër ngeen di ko teewe di ko teewe ba tabarkal la bu ñu ko mënoon ñu jàng faatiha dañuy jàng juróom-ñett suratu Quraysh tu dëgg bi ñu noppee nag ñu soog leen ñaanal yeesal leen tabarkal yàlla ubbi bunt yiw yëpp kenn ku ci ne lii yitteem yal na yàlla fajal ko ko te te muy jàmmam di jàmm njabootam di jàmmi bokkam bi ko ne ñu tàllal loxo yi rek nag ñu jéem a sunu bopp te yeesal leen tabarkal la